yenn yenn yenn espèces yi faire respecter les les les les les règles les, la réglementation euh, euh, nu mu tudd réguler la pêche industrielle oui. surveiller bu baax li nga xam ne moom mooy les le les bateaux étrangers oui. gouvernement bi dafa pêcher ci loolu et loolu kan moo ci kan moo ci sonn aujourd'hui mhm. muy le pêcheur muy le pêcheur artisanal et puis monsieur le ministre parlons-en Union européenne lim ñuy jox ñaata ñu lim ñuy lim lim ñuy lim ñuy jox. non ñaata la ñuy jox un milliard un un milliard sept un un sept cent mille euros par euh, par par par par an. lim lim ñuy jox un milliard sept cent mille euros par an lim ñuy jox. est-ce que loolu est-ce que loolu. est-ce que loolu jar na justifié wu ma déglu ma est-ce que loolu jar na l'Union européenne madame. est-ce que loolu jar na li ñuy def ci suñu géej gi. madame dama la bëgg a expliquer yaa ngi bëgg dugg ci engrenage boo xam ne bii maîtriser wuloo ko. l'Union européenne ne peut ne pêche pas au-delà de 1000 tonnes de merlu et 10 000 tonnes de thon pour 2 milliards de francs par an. non déglu ma. man euh, xam nga man. madame la de la wax la xaaral wax la benn affaire dama xool chiffres yi ngeen di communiquer ma dem recherche recherche recherche xool des organismes indépendants. chiffres yi ñuy yi ñuy ñuy joxe. kon yow organisme indépendant indépendant yooyu nga gën a gëm. non non non pas indépendant. moi je la dégénérer moi ce que je vois. c'est-à-dire Union européenne pour li muy jël ci ñun un milliard un million sept cent mille euros la ñuy jox par an. non je suis désolé. je léegi je vous accorde deux je accorde naa la deux milliards non néew ma ne naa la deux milliards sax madame déglu ma ne deux milliards jaru ko. je suis solidaire. en tant que ministre d'un gouvernement à ce qui a été acté et signé par mes prédécesseurs c'est la solidarité gouvernementale éléments yi taxul ñu signé ko ñoom ñoo ko xam ñoo ko maîtriser à l'époque ba def ko bi ma ñëwee fekk naa fi protocole boo xam ne dafay dafay continuer ba deux mille vingt vingt quatre protocole boobu dinaa ko continuer ba à terme. la ñuy war a def nag à terme di ko xalaat ci biir gouvernement bi bu jotee lay dellu si fii nii lii lañ ci def. xam nga monsieur le ministre. si seen protocole bi ngeen renouvelé en juillet 2019. oui avec l'Union européenne pour une durée de cinq ans. oui da ngeen leen autoriser à ce que. ñu mettre à l'eau vingt huit thoniers senneurs congélateurs. Mm-hmm. dix thoniers canards. Mm-hmm. cinq thoniers palangiers. Mm-hmm. palangrier oui. bon xaw ma palangrier palangrier mhm. deux chalutiers pour le pour le pour le pour le pour le merlu. oui ah. Euh, ñoom ñu war a fay ñuy ñuy fay un milliard un million sept cent mille euros dont huit cent mille euros liés à l'accès au tonnage de référence de dix mille tonnes pour les pour les pour les tonidés. Mm et volume de capture autorisé de mille sept cent cinquante tonnes pour le merlu. noire. Mhm. monsieur le ministre arrêté leen ces ces ces accords là est-ce que xam nga la pêche artisanale boo leen leen euh, euh, équipé woon. Mhm. di euh, mettre en place un système d'équipement performant et, et, et logistique est-ce que xam nga ne ñoom mën nañ fi dugal dix milliards. man mën nañ dugal dix milliards à la place des deux milliards de l'Union européenne. oui mën nañ dugal dix milliards. oui mbaa vingt milliards. madame casser ces accords da ngay def ni un protocole. mais waru leen ko woon renouveler en 2019. madame ñi ko renouveler en 2019 ils ont bel et ah. bien eu des raisons de le faire au nom de l' état du Sénégal. et puis bi ma ñëwee ba léegi maa ngi càmbar je viens de la Belgique avec la DG on est en de discuter des discussions très serrées ñoo ngi jëm ci 2024 fin. protocole bi le gouvernement de la république bu boobaa dina am une position par rapport ak situation bi ak étude bu mu ci def def koy renouveler avec des thèses en présence da koy arrêter avec des thèses en présence. est-ce que ñeme ngeen arrêter ces ces ces ces ces ces accords. je ne fais pas de la fiction madame de pêche avec non monsieur le c'est une réalité géopolitique. est-ce que état du Sénégal am na le courage de mettre en terme à ces accords de pêche avec l'Union européenne. mais attendez alors ce sont madame madame déglu tu mets les accords de pêche tu mets un terme. pour mettre un terme. non à partir de sentiments. man man man waxuma. l'État du Sénégal va prendre des décisions. l'État du Sénégal n'a pas besoin de courage. est-ce que l'État du, Sénégal a le courage Sénégal n'a pas, pas besoin de courage non dégg nga ma ni l'État du Sénégal n'a pas besoin de courage du tout bu koy renouveler daf koy renouveler avec des principes yu ñu accordé d'accord ci bu koy bu koy arrêter dina ko arrêter avec des points et des thèses en présence yoo xam ne day justifier. soit ñu continuer ko ou bien ñu arrêté. xam nga xam nga. donc euh, ne on parle pas de courage on n'a pas besoin de courage. parce nga li li mooy. Euh, accord de pêche yi ngeen signé ak Union européenne y a 31 bateaux au total yuy intervenir 10 navires battant pavillon pavillon français et 21 navires battant pavillon pavillon pavillon pavillon pavillon espagnol. et puis à part euh, à part l'Union européenne il y a la Gambie le Cap-Vert la Mauritanie la Guinée-Bissau ce qui s'explique parce que euh, ñoom aussi dañuy accorder euh, les les les mêmes euh, faveurs concernant l'octroi de de licence mais mm-hmm. accord ak euh, Union européenne yi mm-hmm. d'ailleurs le débat s'est s'est posé on avait pensé à l'époque ak tollé bi mu suscité yëpp ak la raréfaction de la de la ressource ak la volonté de l'État de de nu mu tudd de moderniser. Euh, la la euh, la la euh, la pêche. madame État du Sénégal doon na doon réduire réduire encore drastiquement wala sax. mu bañ koo renouveler. madame s'il vous plaît on vous dit toute la pêche industrielle c'est 15 pour cent de la capture globale les 85 pour cent pêche artisanale moo koy capturer. madame il faut non non non mais attendez je peux pas être à ce niveau de responsabilité te xaw ma lu may wax je suis désolé mais nag parce que un professionnel dans son art n'est pas assimilable à un vulgaire citoyen je suis désolé quand je parle ici je parle de chiffres qu'on appelle dans la langue accurate figures je suis pas là pour défendre quelque chose d'indéfendable dañuy waxtaan sur des principes mais. la désinformation de la rue bu attirer fii en vérité c'est ce que je ne peux pas accepter. non c'est pas la désinformation de la de la de la rue bu ñu tollee ci moment boo xam ne. oui euh, ñëpp dañuy def protectionnisme. mais madame est-ce que dama la xam nga dañu duggagul ci lan nga xalaat ci lii. non ma ne bu ñu dama parler de fait. ma ne bu ñu tollee. ci moment boo xam ne. oui à cause de la raréfaction des ressources. waaw de l'augmentation de la population. réew mu nekk da ngay def protectionnisme. Mhm. gis nga ce qui nous est arrivé avec l'oignon. avec l'oignon. oui yor nañ xaalis bëgg a jënd soble. Mhm. réew yu bari tee seen soble. Mhm. parce que la denrée. Euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa jafe. en fait moi c'est la c'est le débat que je pose. est-ce que mais pour waruñu ñun tamit. ma ne ñu def repli. mais déglu ma pour te donner raison aujourd'hui ceeb bi ngay lekk traditionnellement fu mu daan jóge Thaïlande. Inde la sécheresse qu'il y a eu en Inde cette l'année dernière le milliard de population bi nekk en Inde l'Inde yeewu ni am na dëkk yoo xam ne jaayatuma leen ceeb. voilà ci Covid bi. gis nga nga protectionnisme bi. gars yi def non non dama lay expliquer. jaayatuma leen ceeb bu ñu defee transition dugg au niveau la situation peut-être des éléments du port des acteurs du port woo nañ la aujourd'hui pour approvisionner ce marché il y a un importateur sénégalais qui a 1500 conteneurs de riz il y a 1300 conteneurs de riz en transit qui vont sur le Mali sur l'interland booleeg ñi am 200 conteneurs cent 150 conteneurs ñii 300 conteneurs mais c'est des mesures yoo xam ne état jël na ko en fonction d'une réflexion saine scientifique planifiée boo xam ne on met les de côté on ne réfléchit pas avec le ventre on réfléchit avec la tête. léegi xam nga xam nga xam nu may def dama lay poser la question bi damay contourner. oui. est-ce que xalaat nga ne parce que yow vous êtes un professionnel du secteur. Mm est-ce que jàpp nga ne. Mm-hmm. dañoo war a arrêter d'octroyer de de de de de renouveler ces accords de pêche avec l'Union européenne. de manière péremptoire ñoo ngi koy càmbar. non yow laa wax en tant que professionnel. moi je suis pas libre je suis ministre 24 heures sur 24 <laughs> et j'appartiens à un État. ñoo ngi koy càmbar. <laughs> je suis je suis d'accord mais mais ah. koy càmbar bu ñu ko càmbaree ba pare ñu ngi koy móol bu ko móolee ba nañ ko soumettre le premier ministre mu waxtaan ci ak monsieur le président de la république le président dafa dafa am ay conseillers premier ministre am ay conseillers man ma am ay conseillers bu ñu paree ñu dajee réunion waxtaan la mooy intérêt réew mi. parce que léeg-léeg coow bi kese coow bi kese géewul problème bi déedéet ku ñëwagul xamoo lu nekk ci biir da ngay coow rek ak say idée ak say projection yaa ngi dégg tey jii accord yooyu lañ ko jiiñ la ñu jiiñ accord yi non par rapport à l'union européenne je suis désolé. pour yow accord yi accord de pêche yi avec l'union européenne Euh, du moom moo indi problème bi. mais pas du tout bokk na ci certes parce que ku jël benn ku jël benn kibaara wala nga jël aw banda ci biir géej gi peut-être boo ko fi bàyyi woon Sénégal lekk ko.